ba tey. par exemple loolu mooy tiitaange bi parce que président de la république moo taxaw wax ñëpp ni daanaka dañ leen a bettoon te li fi xewoon dootul xewati. ndax ci dispositif yooyu la ñu nekk. ba tey mars day moom yàlla xam na ne. waaw su ma ko fàttaliku woon mooy 14 mois yi rek moo tax ma ko doon fàttaliku. man sax commencé woon naa un peu sama xel ndax comme que lu ñaaw dafa xawoon am xawoon naa ko ñeemantal sama bopp ba xaw ko sax di bu ko bu ñu bañ fàttali mais su ma ko waxee tey dafa am ku ma ko fàttali. ñoom xalifa sàll ñoom abi si ñoo ñu ko fàttali tey suba ci anam boo xam ne man dama ko ñaawlu ndax lu ñu wax dañ ko dégg ñi fi woon mars ñu ngi fi xale yi fi ne newoon mars ñu ngi fi li fi xewoon mën na fay xewaat ñoom ñoo ñu ko fàttali donc nag su fekkee ne loolu dafa am lu ñu ko war a tànqal ba duñ ko gis te ñu jàpp ne gendarmerie ak police lay jëm mais nañu gën a yokk policiers yi nañu gën a yokk gendarmerie parce que ñu jàmm rek la bëgg mais loolu dépassé nañ ko ndax après dégg nañu ay discours yu changé peut comme ni ma ko waxee dinañ si ñëwaat. non mais discours yi certes changé na. waaw mais discours yi aussi dafa dafa dafa modere mhm. discours yi aussi dafa responsable. Oui. discours yi ñu dégg Ousmane ko wax ko. dafa responsable. mooy discours jàmm la. Mhm. discours naa dem wuy ji ci jàmm bu kenn génn bu kenn def dara mais est-ce que loolu euh, loolu gënul responsable li nga xam ne moom la ñu gis. Papa Ngagne ci sécurité lay wax. discours bi ñu dégg par exemple mu tenir Papa Ngagne affaire sécurité bi wax naa la ma ci wax su la neexee ma wax la li ma xalaat ci lii xew man dama bokkoon tey ci suba bu ñu ma interviewé RFM dama ñaawlu kàddu yi nga xam ne moom la Khalifa Sall jël ak ay ñoñam ma ñaawlu ko je me suis permis moi Pape Malick Ndour de donner des conseils à waxuma ne nag sama conseil la topp ndax xaw ma sax ndax déglu na ma loolu intéressé wu mais en tant que sénégalais je me suis permis de mais que li ma ko waxoon ne ko na ko def noonu la def donc mënu ma ñëwaat tey fii di bañ a confirmer li nga wax ci discours bi ni mu responsable pour au moins une fois ñu dégg discours bu responsable d'accord nañu ak moom ñu ngi koy encourager mu gën a góorgóorlu ci genre discours bi mel noonu parce que loolu la ñuy xaar ci homme politique waaye li ma ca seetlu nag mooy wax bi waroon na gën a mën a pertinant su commencé woon d'abord par désengager wu condamner même à la limite les propos qui le matin par Khalifa Sall et compagnie ndax moom soo xoolee li mu wax ak ñee lañ wax dafa am contradiction bu yéeme bu ci am yaakaar naa nag moom dafa xam ne ñële ñu ngi ko doon nar dugal ci guta ndax affaire yi nag léeg-léeg day am ay galgal yu ndaw yu ñuy dugalante seen biir du ñàkk moom gars yi dañ ko bëggoon tegal ndëgg sërëx peut-être moom gis na ko ba moytu na ndëgg sërëx boobu woote na jàmm non non ruube ma kenn sama xalaat laay wax rek sama xalaat laay wax cette contradiction qui existe entre les discours de ces deux personnes je me pose la question de savoir est-ce que Khalifa Sall et compagnie laaj nañu Sonko balaa ñuy wax loolu man j'ai envie de savoir maintenant man li ma jàpp nag mooy ah <laughs> wax nañu seen discours gis nañu état bi li xew donc entre midi et 16 heures peut-être même su fekkee ne ñoom dañoo waxoon benn kàddu peut-être Ousmane Sonko aussi a mis de l'eau dans son bissap il su ko fi naree def état bi dina taxaw exercer wu parce que nag quand coow li jaru ko ndax li waral coow li moo ko jarul. coow li bu ko waral cest à def bi dina def lan. nga ne su naree def lan nga wax. état bi ah oui mais quand même Papa Ngagne war nga.